jërëjëf euh, mbokki internet yi bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fu waay mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam soxna aada seexu yàlla bi xam ngeen ko miin ngeen ko gënuma leen ko xam neewoon naa leen lu bés bi gën a jege si ñu di ko gën a waxtaane diggante bala Gaye ak ki nga xam ni moom mooy Tapha wura ba dem na këŋ waxi mag dem dañ taali bàgg war mbaam foog jëlaam soxna Ada ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi laag nga nuyoog ñi lay seen ci biir promédia ak burgéwél aouzu billahi min asheytaani rajim rabbi israh sadri wa huwa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli sëñ Buur maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa yéeguwaay soxna Ada lamb ji ay fana ci des mbiru Balla Gaye 2 ak Tapha Tine bi ñu fi jugee am na loo waxoon ci Balla Gaye waaye amit loo waxoon ci Tapha fan la seen mbir toll actuellement ci ñaan yàlla li muy gën a buur du ma ci li may mayu xaalis ah waaye yii ci la bokk nag soxna Ada xam nga bu ne mën na dara foog ñu koy metre à l'épreuve dama la làmb kenn du ko daj danga koy seet di ko gis di ko seet doo ko gis mm-hmm. ba keroog bis ba ñaari mbër yi di léewtoo mm-hmm. ma xamal ne guddi bu ma lu ma lay wax mm-hmm. mooy kii di Balla mi ngi ci weeram maanaam tey dangay toog di wërum alal di wutum dërëm mbir mi te tëj ci dëgër laaj lu tax lu ne nga sangoo doo xam lan la fi mu nekk moom ci taxawaayam ak tolluwaayam bu doon def bac mani pour mu am lu yomb lay doon te da koy dagg d'office. Mm-hmm. est-ce que dégg nga wax bi. dégg naa wax bi. ça ne va pas dire que ni la mooy daal. Mm-hmm. taxawaayam daal. mais taxawaayam ci baax baaxu taxawaayam. ak ci mm-hmm. toogaay bu wér bu wóor. ak am gàllaaj gi mu am gàllaaj guddi yi. ak li mu nekk ci digg ndëndam. nekk ci weeram. maanaam mooy koo xamante ni saw yaram naqariwul guddi yi neex na. su doon xëccoo ndam ma ni sunu borom mën na ko koo jox. Mm-hmm. du dama ko yéene moo tax. Mm-hmm. da ngay wax li ma gis seet wan ma ko lool laay wax. Mm-hmm. ma gis itam ne ki muy bëreel. kii di tapaatin. dama gis dëgg sërëx gu leer. gu muy pexe bu muy waaj pour Balla Gaye pour ndax am na secret boo nga xamante ne nii ci tapaatin. Mm-hmm. bu ca jëmee mm-hmm. yuuxu ma naa jëme fuñ ko foogewul waaye kii di Balla mm-hmm. sama waxi démb bay sama waxu tay tegtal ba nga xamante ni nii mooy yombali mbiram ba ndam am ca ci combat bi ci wàllum tàndarma bi waaw waaw saraxam lim bi buñ ma ko laajee ma jox leen ko ku teewu ma dara tàndarma kii di Tapha Tine itam yoon woom war jaar pour am ndam Hmm. su ma ko laajee ma jox ko ko ndax kat di ci baraada bee nekk ci ci kaas yi. ndax Sénégal ñëpp benn lan. waaye sëñ buur guddi yi bu ma amee may wax. Hmm. dama naan la mi ngi ci état. Hmm. leer na. leer na soxna Ada tey de ay fer nga génne man moo ma jaaxal. <laughs> yow li nga doon laaj yëpp yaakaar naa kon dara ñoru la ci. génne nga am solo waay. fer yi baa xalaatoo samay fera. Ah? déedéet salaamul xam nga fitam de ñeme nga yàlla ñeme nga bàkkaar yaa ngi ñuy taaje boon de xaqataay laa yamale ci ñeme yàlla jooyu ñu ñuy ree asona ah, lu am na dara hmm. dañ ni bu jigéen yabee góor feriyaata waaw ku gis lii sa xel dem ci fu sori waaw dëgg la de bëri na ñoo nga xam ni ci góor yàlla bala ñoo yëngatu dañoo gisi fees hmm. maanaam moo leen di excité loo wallaay lu am solo la sax lu am solo la. nii laay waxati. lu am solo la. sëñ Buur. Mm. bul yàq sama émission damay jàngale. ah déet waay soxna Anda Fer kat dafa am solo di wax dëgg yàlla. sëñ Buur. lu baax la sama émission bu ko yàq damay jàngale. ah mais lii bu fekkee da nga génne lu am solo kay dinañ ñi am na solo nag wax dëgg yàlla soxna Anda tamit nag. fi mu nekk bëgg na yàq li leen di jariñ pour déstabiliser ma. xam nga man soxna Anda damaa nekk jigéen ju am kersa. waaw bët. <laughs> ay wax dama koy wodd xanaa da fer yi gis nga fer yi sam lan la damaa am sunguf sumay àndal ndax léeg-léeg da ngay dégg ñu ne jaayu na jaayu ba sonn te jarul mhm. jeeg bi dëj na mhm. góor musu koo tiim mhm. soxna aada ni ginnaaw yàlla ak yonante bi euh, jële na fi loolu fer yi daa am sunguf sumay àndal Hmm. buñ la ko xasee sàng liy góor ci àdduna dina la wër yaay tànn kala neex nga sëy ak moom. dana tax a jar yow mii jigéen. jeeg bu lamb laa ko wutal. gisoo ken ki toog ci kër gi. xaar ba toqi te gisut kenn pour nit dugg fa seet si ko sax problème la. Hmm. mu ne am na sunguf fu muy àndal soxna Ada bu ko jàmbee ba defal la sangatu leget gi nga sangoo ko alaakulli àll foo jaar di nga dégg ndaanaan. Hmm. leer na. leer na damay jàngale bànneexuwuma. Mm-hmm. xelum géwél léeg-léeg day xaw a jàdd lu <laughs> moom law bee yam <laughs> Soxna tey moom dañ la fëleeg ay sungu fakk ay affaire ah tey sëñ buur mm-hmm. dama gis ñoo nga xamante ni bërëb yi ñuy liggéeyee mm-hmm. dañ leen fay guerre di leen xeex xeex leen yàqal leen ba ñu yàqule ba bu ñu xëyee bëgg faa dem dañuy tëddi nelaw di tërëf te ko tey loola day fekk am luñ la suulal wala luñ la def ca bërëb ba ngay liggéeyee. Mm-hmm. ba dootu la xeeñ dara dara dara lu bàyyi ak découragé. Mm-hmm. sona aada ni moom jële na fi loolu. Mm-hmm. lii bokk na ci protection kaaraange buñ la liggéeyee ba fas sa wàllu yaram ba foo tëdd nelaw. buñ la liggéeyee itam ba amooy nelaw. liggéey day def lii sëñ buur dina la jàpp ba nga am ba nga mel ni ku am estomac. liggéey dina la jàpp perturber ba nga defee ne da ngaa dof te dofoo. Mm-hmm. liggéey dina la jàpp dina la nelawloo ba doo jug seqi tànk ak morom ma. Mm-hmm. liggéey dina la jàpp ba nga toog mel ni ku joom mi doo nelaw. Mm-hmm. sëñ buur lii liggéey da koy def. sonaada ni lii boo ko jëlee xooj ko ci ndox di ko sangoo ñetti fan. doo ko wees lu nekkoon ci sa wàllu yaram dañ na toj. liggéey. ba tey itam ñu dikkati ci liggéey ak rab dama ciy insister sëñ buur. sunguf si bu dee rawaan dalaa jàppoon tey ba nga daanu fii mm-hmm. bu bëggee ka jug sungu si dama koy xooj rek jox la ci mu dugg sa gémmañ ma diw ko ci sa yaram nga ni fojjet taxaw mm-hmm. xam nga nag yow bokk nga ci journaliste yi ma gën a ragal. xam nga xam nga gars léeg-léeg samay xeeti baax baax doo koy faral di génne. yow xam looy bëgg dama ko laaj. ay jomaay def na li Sonko def na lii. ndeysaan dinaa ci li may génne ci ay baax baax yëpp sëñ buur mënu koo wane. ah gars nit ñëw na fi ba bataay ànd ak waajuram nit ñëw na fi bataay moom. Ah, yow kat su ma bëggee génne ko kenn génne. nit ki sunguf si. Hmm. boo dëkkee ñëw wóoluwul te ñuy tibb sa tànk. Hmm. boo ko sangoo ba pare dangay dox ak tànk yi ne. parce que yonent yàlla Muhammad nit ku tibb sa tànk du ko talati. nga boo ko sangoo ba pare. dox ak tànk nit ku tibb sa tànk dootu ko tollanti te dootu ko nettal te du fekkee fi ñu koy waxee ndax du la tal day ne ci leneen. kon bii dóor fayu la. Mhm. da ciy baax nag léeg-léeg. waaw gars yi galaas ba ba ba ba galaas galaas. Mm. nga ñaf ci asib mu wexaat. pour def katulu bon yi jël seen fayoor daa jot nag. waaw dëgg la de. jaruñoo yërëm te jaruñoo baal ndax na ku fi yàq ñoo ko yàq. waaw dëgg la moom dañ lay liggéey ba nga dee nekk ci wàccaa ñu toog ci dëj bi di lekk say nàq te naan ak koo yërëm waaye mbiri yàllaa ñëw te defoo leen waxoo leen fekk na seen loxo nga ca biir mm. sëñ buur mm. mbir am na fu muy tollu jug jaru ko mm. mbir am na fu muy tollu jugal waaye jug gu ànd ak kaani mm-hmm. tamit lu la waay yéene delloo ko ko euh, euh, bàyyi nga ne wàññiwul dara wàññiwul dara moom diine sax dañ ne la bu leen di tooñee lam la tooñ mënoo koo muñ fayul lu Mm-hmm. man soxna Ada léeg-léeg boo ma làmbee dëgg daj ma ndax damay fayu lu gën a saf lang ma def. dëgg la dëgg la. sëñ bu sunguf yi bu la rab jàppee ñu faj la ci bu la def def jàppee ñu faj la ci yàlla boo ko sangoo pare def tànki neen dox nag lu sori ñëwaat. Mm-hmm. lu mm-hmm. nekkoon ci sa wàllu yaram dina yebbeeku toj ba set te yow mi ko sangoo ak weñ yi muy àndal weñ yi semmeñ yi muy àndal. ak ci jaaroo yaay caam baay caam yi wala lam yi dañ ko ciy dugal. secret mm. bu yéeme laay wax ak yow sëñ bu mm. tey dangaa fekk ma liggéey ba naax ah, man de bi waaye tey dama ne woon dañuy yéeg ci kaw ma wan la soxna aada xam yi mu yee salaat ci kaw man dinaa fa yéeg bu soobe yàlla xam nga man may man maay euh, xuri ko ñaa xur daanum na ci teen xuri sëñ buur sa zaar gi nga xamante ni dañoo ñëwee juug ay jabar waaw léegi loolu maanaam dajale waaw ah loolu dara newu ci jaru ngay arñe sunu borom moo mas naa salaa sa waru baax waaw waaw mais jël yeneen exemple ci ñeneen ñi yow ñaata nga yor ñett bu ma jëlu ci yow exemple ci kan koy jël Macky ak Sonko. waaw mais nit ñaa fi kan. yow yaa leen ëpp fit ñoom ñi jiitu ci réew mi. Diomaye ngi ñaar la yor de. waaye yow ñett nga yor. waaw mais quand de ba ngay jàddu fit yaakaar naa booba élève bu sem dëgg nga woon sëñ bu lii hmm. dafa bëri jigéen ñoo xam dañoo bëgg seen jëkkër yi gën leen a déggal gën leen a jege lu ñu wax ñu ne waaw léeg-léeg dañuy noob nit te niñ koy noobe sax duñ ko xam. Mm-hmm. man noob bu ma la ko joxee muy dugg ci biir dama naan la këf ki bu ko raxas. tànka ne déedéet. par exemple tey su ma la joxoon loo xamante ne da ngay raxas sa këf. Mm-hmm. dama naan la libère ko nee rek def ci ndox. Mm-hmm. li ngay raxase këf gi chaque jour nay bees. këf kat bu fanaanee fanaanaan day forox. ndoxum kese du forox de. dëgg la day lu koy foroxal maa la dégg. waaw. xam nga nag tey booy coach sa jeeg ji te xamoo munoo wéroo mm-hmm. doo après doo xool jeexintal yi muy def ci biiru nit ki mm-hmm. yaa rey dëgg la noob ñaata nit la rey bari na lii boo ci dee tibb di sax noob bu mu fekk sa biir da koy dindi lu mu fekk sa biir da koy dindi waaw cey soxna Ada léeg-léeg jeeg toog sëñ buur mm-hmm. ñu xëy xëy rek jëkkëram ni ko doy na demal ma dem bii mooy fas gi ñuy nattee fas gi ñuy natte sa kanam jël sunguf si sotti sa awra mu wàcc ma jël ko ni la nombre de jours yi nga koy sango fasu awra bi dégg nga ko te musoo koo gis barki rasul <laughs> gi heure buñ nee jeeg tey fase naa la yaa bàyyi sa bopp mm-hmm. bu ñëwee ba ma jël kaasu attaaye mm-hmm. koy fas ba pare dugal ko ci biir di ko génne dugal ko ci di ko génne dugal ko ci génne ba muy trois fois Mm-hmm. sëñ buur yan millier ngay toog ñu xelli kaas attaaya jox la nga ne du ma naan bëriwul. bëriwul de attaaya ñëpp a koy naan. bëriwul kay. baraada boo ko tegee ñëpp yëngu. Mm-hmm. ni sa gémmañ gi di yëngoo ngay bëgg a ñam ci li ci baraada bi. Mm-hmm. noonu ngay yëngatoo ci sa soxna boo koy bu ngeen di nekkaat ci jàmm du ngeen tàgg ku yàlla bi da ngay jékki-jékki ñu ne lii am na lu fi jaar looloo koy waral sëñ buur. jeeg yi bu ñuy wër di féexal seen bopp góor yàlla yi di wër di di làqatu ci néegi sedd yi man jeeg bi maa ci biir àll bi di ko toj. waaye soxna neexuñ sedd yi tamit baax naa noppaloo xam nga kër ga njaboot gi xale yeeg ñew ñew ji moom. am na ci loo xam de boo ko bëggee faaw nga xoslu waaye bëgg bànneex ak feet ak sër bu rafet. Ah, bu la ko gën a ñeme moo la gën a tële xam-xam. alors bu bant yi dina la yéem. li bantu la soxna la. du ma ko wax. doo ko wax. yi dama koy natt ci garab gu daanu ci àll ak fu mu doon na nekk garab gu daanu. Hmm. ci lay natt ci sama baaraam bi fi ma bëgg mu yam fa. Hmm. góor ñi nga xam ne liñ yor buñ doon diw fii ba suba du yokk. Hmm. ndax siddi ga daa bañ. dañoo yàgg fo. yaa ngi may dégg. bu baax. góor ñi nga xamante ne yàgguñoo eh, bañ dalee fa yàggul. waaye yàlla daa dogal ni. feebar yu bëri daa daje ci ñoom ba si digg mënatut a taxaw. Mm-hmm. góor ñi nga xamante lañ yor daa ndaw. Mm-hmm. ba kuñ cay yëngal doo yëngu. leen mm-hmm. baal ma ndax nag ah jàngale nag amul ah, kersa laa xayaata fi diin. xaaral faxe samay nopp sax jéeg yu bëri dañuy dem di wut ku leen kobasal ak ku leen woqal. yàlla nañ ci yàlla musal. ah li may wax da nga weddi. déedéet di ma ko dama ne yàlla nañ ci yàlla musal. waaw man damay jàngale rek xam nga al umul madrasa. waa xam naa kay. man yaay laa te école laa te li ma xam daa bëri te li may dégg daa bëri. waaw sëñ Buur. Mm-hmm. bëri ko bu feesee du yëngu. Mm. ñun li ñu xam ku ñu jàllale say message sa àdduna yàqu. ñun buñ fi nekk woon di defar nit ñi ak di defar dëkk bi boole kook defar yi nga xamante ni ñun. Mm-hmm. heure bu ñu xëyee ñun médecins yi lu ñu recevoir ci ay tuyaaba ñun dañuy recevoir lu ni tool. Mm-hmm. ndax dañuy faj. kon xam naa li may wax. bëri na ñoo nga xamante ni seeni soxna dañ leen koy wokkal ba mu neex. te ñett ñi koy waral. Mm-hmm. muy góor gu nay góor gu tële góor gu ñàkk duus. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax jigéen moom bëri na loo nga xamante ne bu ko amul da koy wëy. waaw dëgg la sëñ buur mi daa am yërmande. bu rombee jeej yi lamsa la karaay. ñoom dañuy daw foofa. ca néeg yu ya di serloog sëñ buur. yaa ngi may déggam. waaw buur mi joxañ bi baaxul. Mm-hmm. lu mu bind doo ko yegg xawlan salaamun xawlan damay joxe misaal jël misaal ci man salaamun xawlan min rabbillahi rahi azim wala xawla wala quwata illa billah damay jël misaal ci bul jël misaal bi joxoñ bi baaxul ci man jël ko ci keneen <laughs> neel neel balla bi baaxul. balla man balla ge. déedéet ah. wala wala Moussa Fall. kon eh, ay Moussa Fall bu ko waxat de la. joxoñ bi baaxul. munul bind. moom ngóor si. waxal loolu moom góor si kon. waaw kay comme da nga koy bañ. dama koy bañ. gis nga wax ju bon ni koy waxee Sonko ak Jomaay mu may métti. waaye may jox ay exemple ci yow mu lay métti. ngay fi ne nii lu ne tari nga ko. loo jàngul sax tari nga ko. joxoñ bi baaxul joxoñ bi baaxul munul bind. moom ngóor si. buy duut baaraam ndaw si du ko yëg. moom ngóor si. da koy wëri. waaw moom ngóor si. gi loxoom gaawul. te poos bi diis na. Mm-hmm. ñoom danoo bëgg xaalis dañ koy wëri. duma ne nag jigéen jépp mm. duma ne jigéen yépp de ak ki mm. jigéenam mm. fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp tepp yi ndax nit ka ñëw na fi nee na man lay nax <coughs> ni ma soxnaa da ci sa raxasu yi ñuy bind laa soxla dama nekk ki yàgg ak moom loolu te nanguwul a def farata te ba muy bëgg waaja defal ko farata ndekete am na jëkkëri tubaab eh. kon ñaari jëkkër a ngoog kon lu ne am na Hmm. sëñ buur kon su may wax rek dee ma bàyyi ma génn li ne ci man. waaw mais bul jël exemple yu gàtt ak. ci yow dafa yoom ak dafa nangam yooyu bu ko jël ci man. yow de ñam nga saareet. waaw mais xam nga dama xam dama xam. ñaari bant yi su ma ko boolee. ba hmm. defal la cëw li nga ta ko ci sa ndigg yaay raw fas ku tëb nga tëb. ku tëbul nga tëb. barke yonent yàlla Muhammad dëgër këcc ngay de hmm. ta nag dañ ni woon góor lay dëgër. waaw góor day dëgër. boo gisee ñu jël ko exemple ci maçon ba mécanicien. Mm. xam nga ni ñoom liggéey yu dëgër yu woow yooyu la ñuy def. Mm-hmm. kon noonu la mbir ma di mel. waaye lii nag moom ci wàllu dëgërte boo bëggee plafonné. ba jeeg boo fanaanool mu yëg ni yow da ko koy yëg. Mm. lii buñ ko defee cëwri jox la ko nga tax nga jeex. dëgër këcc. loolu la xaar pulaar naan xaala gasi. xaala gasi. sëñ fital la lii. waa lii boo bëree noon. Mm-hmm. da ngay bokk ak nit duñ la yéene te duñ la yërëm mm-hmm. loo am ci lu baax ñu làqatu yu jooy mm-hmm. te xamu ne ni sunu borom mooy séddale sëñ buur cër bi sunu borom di joxe yamut ak cër bi nit di joxe nit cër bu mu la jox tey boo lëgee bu la meree nong sunu borom bu la cëralee da laa cëral dëgg de ma waaye ba tey mbokk yeeg gaañ yeeg jege ñaale yeeg xarit yi du nongu Hmm. dañuy nekk noonu invisible. Hmm, noonu privé. noonu privé noonu bu laqatu noonu buy nduru nduru lu soppe waru sa jeeg ba. Hmm. sëñ buur yal nañ yàlla musal ci noon bi nduru nduru lu soppe. mën na laa tër mën na laa rey ba pare ngay doog a rendre compte ne yow ndekete ay nooni kese. nga jàppool jamono. sëñ buur gis nga lii ngay gis balu fital la dañ koo sox def ci mbir. boo ko nee jàq sa noon ay waxam jeex na. nii rek war nga ko nii rek parce que yàlla Muhammad bu dee dalaa bañ tamit dëgg ci moom fa lay doxee yàqule ba faaw te daraam dootul jàkk te dootul taxawal dara ba mu sotti te lu mu la yéene day mel ni balu tenks ci kawam kon lii ñëpp a ko war waaw li de arme la Buur. Mm-hmm. dama fee indi woon sangatu milliardaire yi. sangatu xaalis. mooy sunguf bu weex bi ku ñëw kër soxnaana bu la ko joxul joxul a garab. Mm-hmm. pour leer. waaye ku yorul dara it mënuñu la koo jox ndax ne ma koy amee la dafa metti mennum soxnaa da ngay gis muy muy muy muy muy tàqale dëgg ak neen ak di la misaal ci ay garab bi ci gën a efficace bi ci gën a foor bi ci gën a baax mm-hmm. fii li fi baax dëgg-dëgg ak neen mayewu ko caaxaan mayewu ko mm-hmm. ku bëgg ci dara ji dara day def ci dara ji dara mm-hmm. beneen sangat bi nga xamante ne nag bokk na ci li nga xamante ni moom bu fekkante ne bay rek yokkute ak ubbeeku ak nit ñi naaw di dal ci sa kaw ci di teral luñ yor nga lekk ko. Hmm. li ñuy tox te di ko tere lay àndal du ma ca jaar nag. yow ma fit nag boo ca mënee yegg yegg ja waaye man damaa joxe rek junj kon Aliou Saratu yàq fii li ma naaqil sëñ buur. Hmm. may jéggalu ñëpp di déwénal ci ñëpp ndax dañ ni suba la mooy soxna la amagu ah. yow xanaa lum mu doon ci ci ci ci ci émission bi nga koy nga nga koy kiyee. waaw ñetti soxna la am ku nekk war naa la jox juróomi ginaar boo ko boolee muy quinze ginaar. loolu de ko dégg bàyyi bo na ñëw sëy ak yow te noonu nga koy defee. noonu laa koy defee baa du jox xaar seeni ginaar nga yóbbu ko ci femme yi. femme yi ah. lu ca xam. sanaa la jox ma ay ginaar al isharatu liman aqi du noonu nga waxee léegi. waaw ah. léegi kon man maa ngi jéggalu ñëpp di déwénati eh. ñëpp. di leen wax ni bis la boo nga xamante ni ñu bari ñu ngi cay kaf di caree. di mm-hmm. ko sunu boroom waxee. Mm-hmm. wa tadxakuuna wala tabkuun. Mm-hmm. li tax ñuy ree te jooy ñu. Mm-hmm. waaye bis la boo nga xam ni fas juddu lillaahi wax bu dul mm-hmm. euh, di su jot ak a sàbbal sunu borom rek a ci gën mm-hmm. kon bis boobu bisub jaamu sunu borom la sañ buur kon su ma yaatalee dañuy jël temps bi ba mu ëpp te temps bi ñett nañu xaj nañu wa axiru daawaan anil hamdulillah wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ buur